réussi bi ñu amee firnde ni am na ay ay convocation en bonne et forme doxal nañ seen bopp ñëwal nañ seen bopp autorité police yi ñu ngi leen ciy remercier ci wàll boobu parce que démb am na yoo xam ne mu ngi doon am xëy na rafetlu wuñ ko woon trop mais ils ont compris euh, bàyyi nañu député yi seen sago fanaan nañu xëy nañu ñëw nañu wuy si leen ben on leur fait confiance ci ne ñoom seen bopp ñu ngi dugg seen i loxo dinañ wuyu ci tontu yeneen di laaj mais bu lépp noppee nañ ko delloo ci yoon buñ ci rax politique buñ ci rax par par parparloo buñ ci rax lenn luy tax boo léegi lu ci mënti génn ñu ne dañoo jenge nii wala dañoo jenge nee donc loolu lañ ci bëggoon wax euh, ñun nag suñu warugar mooy ànd ak ñoom parce que on les soutient ils ont notre soutien absolu ñu ngi leen di gunge. parce que seetlu nañu li fi nekk ci député ëpp na dix députés euh, mais c'est normal parce que nous sommes en session nous sommes en session ah, lu ñu mënti wax it danañ ko delloo ci wàll boobu parce que li ñuy wax daanaka flagrant délit Euh, bu ñu ko seetee bu baax moom peut poser le débat sur euh, la constitution wala sur la nécessité wala sur euh, l'intégralité même de la notion de flagrant délit loolu xëy na ay débat yoo xam ni ñoom seen bopp avocat yi seen xam-xam màcc wàll woowu ak ñoom kilifa yi nga xam ñoo yor mbir mi danañ ci waxtaan mais li solo pour ñun mooy ñu ànd ak ñoom ñëw fi ñu xam ni ci suñu njaboot lañ bokk ñun ñëpp ñëw nañu pour leur exprimer notre solidarité njaboot la famille politique est venue la famille parlementaire est venue pour leur dire euh, vous n'êtes pas seul dans ce combat là vous n'êtes pas seul dans cette épreuve là loolu moo nekkoon suñu tànk je pense que matale nañ ko. président dañuy ci wàllu seetlu euh, ay convocation dikk yàgg na di am mais disposition policière bu toll nii euh, lu ci raar la. est-ce que njort nga ni ñoom danañ ci génne delluwaat assemblée nationale. lu ñuy njort nous sommes parce que gis nga wàllu yoon boo ko bëggee def ci parparloo ak ci përti përti wala ci yàkkamti daanaka du sotti li am solo pour ñun mooy ñu xam ni bu fekkoon ni mille question lañ leen di posé ñoom am nañ ay tontu ci mille questions yooyu. bu fekkoon ne dañ toog ba ba suba cinq heures du matin ñuy laajte ñoom noppi nañu pare nañu psychologiquement intellectuellement mentalement pour toog ak ñoom tontonte ak ñoom ci wàllu woowu te lép ñu teg ko ci dëgg ci ci dëgg ñun nag li ñu war comme ni nga ko waxee léegi <laughs> mooy euh, ñu ñu ànd ak ñoom ci wàllu ci ci ci ci ci épreuve bi je pense li ma waxoon léegi rek. def nañ ko ñi ngi xaar conclusion yi ci mënti génn yi ci mënti di génn it buñ ci àndeek ñoom parce que nangu nañu ni c'est une bonne distribution de la justice maanaam li yoon waroon taxawee da koo taxawee te mat na sëkk lu ci génn daañu ko nangu bu ñu amee njort ni yoon dafa jangit daanaka bari na parce que chaque fois boo xamante ni bii homme politique la yaa ngi koy wax euh, bu fekkee ni dispositif bi ñu jël nii bu doon keneen la xëy na du demee nii mais xëy na c' est l' envergure parce que aussi ñi fi dugg c' est pas n' importe qui du ñu ay Samba Boy c' des honorables députés élus par le peuple sénégalais pour représenter à l' assemblée nationale donc c' est pas des gens qu'on peut appeler n' qui euh, am na lu ñu leen wegee am na lu ñu leen lu ñu mandargale moom indaale nañ ko bi ñuy ñëw nañ leen bàyyi seen i mandarga yooyu. jërëjëf euh, Souleymane je voulais je voulais aussi tamit préciser je voulais également yokk ci ne ñoom itamit xamuñu lan moo tax ñu leen di déglu parce que gisuñu convocation. mais ñoom dañoo déposé woon aussi des plaintes en bonne et due forme parce que ñoom ñëpp ils ont justifié maanaam andi nañu ay firnde ci ay incapacité temporaire de de de travail ñoom ñaar ñëpp andi nañ ko donc mënu ma la ni ci lii lañ leen di déglu wala ci lee dañu am njort ni rek ni xëy na ci seen plainte lañ leen di dégloo xëy na ci beneen plainte lañ leen di dégloo bu ngoonee incha allah danañ am ay information moom laay wax wax naa ko léegi mais loolu lépp euh, les appréciations qu'il faudrait en faire on laissera euh, aux avocats le soin de le faire ñun euh, li euh, liñ ci war a tenir ci wàllu politique incha allah daanañu ko taxe ba mat sëkk salaamaaleykum. merci. Euh, jërë ngi jëf euh, honorable xanaa ñaari député yi nga xam te ni ñoom la ñu convoqué ci parti PUR la ñu bokk ñu bëgg daje fekk ki nga xam te ni tam ci député PUR la ñu xam ban réaction la am moom tam ci ki nga xam te ni ñoom ñaar ñoo bokk daay ñoom bokk parti du moins.